taala wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla weer wi jub ramadan mu ko ci bismillahi rahmaani rahim motulee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te li nga ci jëf ci xeeti jaamu yàlla yëpp yàlla nangul ko kon dellu si tey di mottuli liggéey yi ñu tàmbali woon muy waxtaane rek jaar-jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jamono benn weesu mu waxtaane woon ak mu jëm waxtaane lenn ci ay jikkoom waxtaane lenn ci ay wax yu mu wax tey ji ñu dikk kon di tàmbalee ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu mu làqoo ba wujji xew-xew ya ca am sax du gudd waaye dinañ ci jaar rek tudd ci tuuti la ca des mooy soxnaam yi mu bàyyi kenn ku ci ne danañ jaar ci aw turam wax dara ci ay jikkoom bëggit mu doon roy teef ci jigéen ñi ndax yonent bi li ci alxuraan wax mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana bi mu doonee royteef nag te yàlla yabal ko ci ñaari liji bopp yi muy nit ak jinne yabal ko ci góor ak jigéen ba lu mu ci diine ji rek bu ne góor ni jigéen inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal qaanitiina loo xamante ni yàlla dina ci wax ak góor ñi te waxu ci ak jigéen kon bu ñu andee soxna yi yonent bi yooyu euh, mbokk jigéen yi kon danañu am roy royukaay yu ñu mën a royee ñoom itam loolu mooy sababu ñu bëgg leen tudd kenn ku nekk ñoom andi jikko ya ak lañu cay dégg xam ngeen yonent bi bi mu fi jógee ba noppalu nag ba mu leer mu tàmbalee siiw ñii ni noppalu na ñii ni mënti nekk ci seenu loolu ak nit yi it dama bu loolu def ci feeñ nit nit moom fu mu mën a toll ci ay daraja rek dafay nekk ci biir cadre doomu aadama nit googu moom la Omar ibn Xataab feeñal mooy bi ñu nee yonente bi noppalu na dafa génnee jaasi ni képp ku wax ni faatu na dina naa dagg sa bopp ci sama jaasi ji ndax yonente bi du faatu mënta nekk daan nag na Moussa defoon dem ab diir di deeyaale ak boromam noonu la yonent bi def waaye dina dellusiwaat bépp naafeq bu doon wax ne faat na dana rey bu ñëw bi nekk ci wax jooju Aboubacar ñëw ba mu ñëwee jàll ba ci nekk yonent bi sonsam mu muri ko daal di koy fon daal di koy muuraat daal di ñëw ci biir mbooloo mi taxaw fekk Omar taxaw mu ne ko Omar toogal waaye toogul Aboubacar daal def xutba bu gàtt. te làmb la bari dafa wax ni man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan xad maat wa man kaana yaabudu llaaha fa inna allaha xayyun laa yamut da xam daal bis ni ki ku daan jaamu muhammad na xam ne muhammad faatu na bis ni ki tey koo ci xam ne yàlla nga daan jaamu nag na nga xam ne yàlla kuy dund la te du dee ba mukk daal di tere ayat wa ma qad xalat min qablihi rusul afa maata aw qutilan qalabtum ala aqaalikum wa man yanqalib a aqibayhi falan yadurra allaha shay'an aaya boobu mi ci xareb bañ di déclaré ba Ibnu Qima waxee ni rey naa Muhammad bañ ñan na di jullit yi seen pas-pas xaw a daw ginnaaw biñ demee ba xam ne yonente bi faatuwul ñu daje ci moom ginnaaw bi la yàlla wàcce aaya ko dalee ci kaw jullit yi di leen Muhammad kat lu dul te ay yonent jaaroon nañ ci jëkk ko bu faatoo bu dee mbaa ñu rey ko ndax da ngeen di dellu ci la ngeen nekkoon du naa ci yëfar ko ci def doo wàññi yàlla dara aaya boobu lu ko dafa wax ne dafa mel ni tey ji la aaya di wàcc ñu daal di nekk ci jaaxle gi nag ak jaaxle da yi mbirum xilaafa gi it foofee wax nañ ne tàmbali ne werante nañ ku war a wóotu werante bi ñii ni yee ko war a wóotu ñii ni lansaar yee ko war a wóotu muhaajiroon yeneen ñun ñoo ko jëkk topp ñooy ay mbokkam e, kon wóotu ko ka koy wóotu ci ñun ñi la war a bàyyi ko lansaar yi ne ginnaaw dañu ko mën a xalaatoon ci ab dëkkam ba mu jógee ñëw ñu fat ko ka koy ci ñun la war a bàyyi ko am na dëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ginnaaw bi yàlla def tawféex ñu dëppoo ci Abu Bakar war ko wóotu wax nañ ne Omar moo jëkk jaayante ginnaaw bi magi saxaaba ñëw ba lépp daje ci kàddu Abu Bakar war a doon xalifa yonente bi léegi yonent bi foofu ñu ko bàyyi ci néeg ba saxaaba yi dem di ko jullee kan par kan di ko jullee ba mag ñi jeex jigéen ñi ñëw jullee ba xale yi sax ñu ne jàkk ko fa jullee ko mu nekk fa ci guddi nag ko denc muy tiisu dajoon kapp yëpp yëg ko léegi nag mu bàyyi fi ñaari mbir yooyu ma waxoon ci ginnaaw muy alquran ak sunna bàyyi fi saxaaba yi ñu di ko leer noonu mu bàyyoon saxaaba yi ñu di leer nag def ay futuhaat fu diine war a ñu àggale ko fa noonu la fi bàyyee juróom-ñeenti soxna juróom-ñeenti soxna la fi yonente bi sallallahu alayhi ko yàlla jagleel mën nañ ni kon yonente bi dencoon na fukki soxna ak benn fukki soxna ak juróom-ñeent ñi fi la leen bàyyi mu mel ni ñëmub soxna yooyu nag doon na wax ju bari ci ñu noonu diine wax ju bari wax nañ ko ci e, di dal ci kawam jaare ko ci soxna yooyu am na ñuy wax banaan naan kooku nitu bànneex la woon waaye nit ku jëm ci yàlla doo takk ay jabar yu bari te Muhammad ay jabar yu bari képp la fi bàyyi lépp am na ay noonu islam yi ko wax waaye ñooñu ku leen di tontu da wax rek ñu yonente bi bi muy doon gone ba ni mu amee juróom benn fukki at ñett di fi ku ko xam rek ci ak fegu nga xam ak sori gum sori mbiri bànneex kenn koo gis mu jóg ni dafay seeti xale bu jigéen kenn mës koo jóg gis mu waaj ni dafay dem yi jigéen ngir waxtaane fa loolu ña ko xam ci ak beneen ba ci ak mujjam loolu lañ xam ci moom dama nag tubaab bu nekk ca Europe mbaa mu nekk Asie kenn rek di jëfandikoo xelam ak xolam di na sax bu jëfandikoo xel ko teg ci yoon waaye ak xolam lay jëfandikoo di di dal ci kaw yonent bi di wax lu ko ne kooku waaye ña ko xam dund ak moom rek lii xam ci moom mës a dégg ñun yonente bi daana dem sa fawukaay kenn mës a dégg ñu fekk ko ci béréb bu ñu naan sàngara kenn mës a dégg ñu ne ànd naa ko jigéen jum denc loolu mës a dégg ci histoire tàmbali ci ak daaw ba ci magam kon loolu noonam yan jamono teeloon ñu gën koo noonu ci adduna bi tuuma yooyu kenn nit ñi mësu ko xëpp te ñoo gënoon a xër ci xam lu koy manqué boo ko ginnaaw nag ñu ne xam lu koy manqué boo ko képp moo leen ñoroon ñu dund ak moom ba mu jógee fii te loolu mësuñ ko ko xëpp. kon keneen ku ñëw di ko xalaat di ko wax mën naa am dangay ngay manqué sa bopp sax yow soxna yooyu ki mu jëkk denc mooy soxna Khadija bintu Xuwaylid mooy soxna si mu njëkk denc bi ma koy denc moom yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom soxna soosu it fekk amoon na borom kër jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba am ak moom ak njaboot borom kër ba nag ba mu faatu bi ko yonte bi ci mi ngi toll ci ñeent fukki at moom soxna si yonte bi toll ci ñaar fukki at ak juróom léegi li yonente bi yor soxna soosu it muy soxna Xadija tëkkul keneen teg ko ci kaw ba ni mu moom Xadija njëkk yonente bi di gàddaay bi muy faatu am na lu ëpp juróom benn fukki at yonente bi toll ci ñeent fukki at ak nangam di jege juróom fukk kon yonente bi ànd naa Xadija lu mat ñaar fukki ak juróom te dolliwu ci keneen ba ne Xadija faatu Xadija li muy doon doon mag nga xam ne bi ko yonente bi takk am na ñeent fukki ci ay ay soxna moom la moo ci ay ay soxna cofeel gi mu ko sopp dem na ba soxna si faatu lu yàgg ba mu yor yeneen soxna waaye dafay tudd Xadija lu bari di ko ko ba fiiraange sax a dugg ci seeni xel ci loolu soxna Aïcha day wax ni yonente bi daawul xaw a génn kër gi te tuddul Xadija tagg ko ay wax na benn bis am na benn bis mu dégg mbokkum Xadija mu wax xaj na rakkam loola magam yonente bi daan ci kooku leen saa boo waxee daf may fàttali sama xel daa dem ci Xadija soxna Aïcha ni ko fiiraange duggee foofu nee na ma ne ko Xadija lu doon dara lu ak màggat boo xam na bu yàgg te yàlla wóotalal na la ko wóotalal na la ju ko gan nanu yonte bi mer ñu ko déedéet ba ma nit ñi weddee la ma gëmoon ba ma nit ñi bàyyee la ma jàppoon dimbali ma ci alalam te booba ñun ñëpp xañ ma seeni alal te ci moom it la ma yàlla wërsëgale ay doom kon yàlla mayu ma kooku nag ne loolu la yonente bi tontu soxna Aïcha radiyallahu anha bu mel ni cofeel gi yonente bi loolu ku ko xool da nga xam ne du cofeelug bànneex du cofeelug ak taar du cofeelug ak ndaw waaye jëmmi xelum Xadija ak jikkoom yu rafet ak matale koleeram ak jiitu gim jiitu nit ñi ci ak ngëm gëm ya nubuwa gi loolu yi mooy mooy mooy li sababoon cofeel gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ci kon lana doon jigéen ñi ñu xam ni cofeel gi dox diggante góor ak jigéen du taarub kaw rek yam ci maa ngi ne taarub kaw nit dana ci sopp nit waaye bu boobaa loolu la ñuy tuddee ak maber nga xam ne day mel ni lu romb rekk di jàllee waaye cofeel dëgg dëgg dëgg goo xam ne dalay topp ba ci sa biir bàmmeel la la ko mën a may ay jikko lay doon kon soxna Khadija li ko may cofeel googu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ay jikko yu rafet la yu mu ànd ak gannaaw bu Khadija faatoo mu door a denc kañ wax as sayida sawda bintu bintu zamaa ku wax sawda mooy ñaareelu soxna bi mu denc ginnaaw bu Xadija faatu moom dafa doon koo xam ne moom itam këram ci ñu gàddaayoon demoon Éthiopie ci la bokk waaye dafa gàddaay ànd ak moom dem Éthiopie far euh, soppi ku doon ab nasaraan doon fa nasaraan ba foofa la faatoo ba mu faatoo nag soxna si di sawda wéet lool amul ko ko jaboote bu del si waatee ci ay waa këram mën naa am ñu forcé ko ci ak kéefar te bu boobaa lor ju metti dana ko ca fekk loolu moo waral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, féete woo ko ko ngir terale kooku ci ngamam gu dëgg kooku mu gëm kooku kon dégg nañu ci ba tey nii jigéen war naa am décision boppam ci ak gëm nga xam ne du sukkandiku ci jëkkër ju mu àndal jëkkër ja weddi du sukkandiku ci ay baay ak i ndey te loolu alxuraan joxoon nañu ci misaal ci soxna sayidatu Maryama ak Asiya moom la alxuraan di junj nii daraballahu masalan lilladina kafaru mraata nuuxin wa mraata luutin kaanataa taxta abdayni من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين daal yàlla dina jox jullit yi misaal ci soxna noox ak soxna Luut ñu ñu nekkoon ci ron ñaari jaam yu baax waaye dañ leen a war war nga mooy ñàkk guñ ñàkk ànd ak ñoom ci pas-pas ba tax na ca waa sawar lañu bokk daañu wa daraba allahu masalan lilladina amanu imraata firawna ñi nga xamante ni dañoo gëm ba tey yàlla dana la jox exemple ci soxna si raana ci ni maanaam léeg-léeg yéefar yi la jox exemple ci ni ak kéefar de ak ak ngëm mën naa juddoo ci biiru kéefar li ngeen mu jubloo woon julli di leen ak kéefar mën naa juddoo ci biiru ngëm moo tax ma ne wa daba laahu masalan lillazina amanu imra'ata firawna iz qaalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljannati wa najjini min fir'aana wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin wa maryama ibnata imraan allati ahsanat farjaha فنفعنا فيه من روحنا وصدقا بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين mu joxe ñaari misaal ci ni soxnas Firawna ngi nii doon ab siddiqatu kii doomi Imraan la te bàyyam ab yëfar la mu doon ab siddiqatu kon léegi la mooy li yàlla ni ne yuliju layla fi nahaari wa yuliju nahaara fi layli soxna si it foofu rek la jaar muy borom la àndal ci ak ngëm ñu dem Éthiopie mu soppi ko doon mun a saan faatu fa moom mu dëggu ci ak ngamam ba yàlla terale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc ko loolu rek ñu jubloo joxe misaal ci ni kon jigéen war naa am gis sama boppam ci ak ngëm ba du xool du ca xool baay du ca xool borom kër bu ko yor jëmee ak ngëm mbirum yàlla la moo xam ne yàlla mooy seet ku ko neex mu tàbbal ko ci xolam gannaaw ba mu ci tàbbee yëpp nag si gis sama bopp moo ko jàllale. soxna Aïcha doomi Abubakar mooy ñetteelu soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom di ko yonente bi dañ ci mi ngi toll ci juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at am na juróom fukki at. ak juróom wala jege na juróom fukk ak juróom mel ni moom la yonent bi dañ ci ab jànq mu mel ni gorom léegu yonent bi doxalee digganteem ak Abubakar du dara dul ak pay gum ko jubloo fay ci ànd gu rafet gi mu ànd ak ci fii ci dundu ko ndax Abubakar mooy ki xaritoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk